Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. C'était une promesse, une promesse qui se tient ce soir. Je vous avais dit que sur la route de la Didas Arena de Paris, porte de la Chapelle, je croiserai bien Walisek. Ce soir, je croise bien Walisek ici même dans le studio de ITV pour partager avec lui des moments, une enquête sérieuse, Wallis qui avait promis de répondre à toutes les questions. Boops, on ne préparera pas l'émission justement pour parler de ça et ça et ça. On a envie de parler aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux internautes, au monde entier, mais puis à tous nos amis qui se trouvent à Paris, qui se trouvent un peu partout en France, qui ont envie de venir voir le spectacle inédit, le spectacle inédit qui se prépare à Adidas Arena à Paris. Il est spécial. C'est un garçon pétri de talent aimé par chaque Sénégalais. Comme chaque Sénégalais aime ce garçon, chaque Africain cherche à le connaître, à le voir. Les citoyens du monde entier veulent le voir et ont fini de l'adopter. Mesdames, Messieurs, voici pour vous, ce soir, le digne héritier de John Balagosek, l'héritier d'une musique originale qui s'appelle Ramdan. Voici Wali Balagosek, le fils, l'original sur ITV à l'instant même. Appréciez vous-même. Balago, bien le bonsoir.

symphony sa cité waaye lii One, two. One, two, three. go lagi ay nung mono diwa de bel melody de couronne d'harmonie juste vous dire merci à ma symphonie wow, wow. c'est, c'est tout. m'a vêtu de tous les mots de nos remèdes Ah, ITB de nos repères.

Merci beaucoup. là monsieur comme chose promise, chose du voici, Wali Balagosek est avec nous sur la route de Adidas, Parena, Adidas Arena Paris pour le 7 décembre prochain. Et on avait dit tout simplement qu'on voulait euh, euh, échanger avec lui euh, sur sa carrière, mais aussi sur l'homme, sur l'artiste, sur sa disponibilité, sur sa gentillesse. Un garçon pétri de talent, mais qui est différent en tant qu'artiste, différent en tant qu'homme social. Je vais m'arrêter sur l'artiste d'abord, avant de revenir sur les autres aspects de l'artiste. Balago Manglenu de fay Boubacar di la la di la à travers ITV waaye tamit ci seen page yi nga xamante ni mooy page TikTok Facebook whatever di nuyu sa followers yëpp ñu la topp sa TikTok aussi di nuyu sama waa TikTok yëpp di nuyu ñëpp vraiment salaamaaleykum. Fama Thioune ngi noonu. waaw c'est ma fille. Ah, hein, c'est ma Fama, bonsoir. Wow. Bonsoir Boubacar, bonsoir DJ Padros. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous.

2024 Bangli Boubacar la star di nuyu téléspectateurs yi nga 7 comme ni ko waxé té dañu am gan ah, gan gu euh, mën comme ni koy le chanteur du peuple Hein, ku ci mi ngi ci ce salon ci euh, ITV euh, di ñu am fierté ak di retrouver comme nous koy à chaque fois mais de fay spécial Boubacar effet euh, spécial Balago tu es sur la route d'un grand événement mais quand tu es sur la route d'un grand événement nga c'est pas pour la première fois vous avez fait Bercy vous avez fait le Grand Théâtre le Grand Théâtre n'a pas suffi on est sorti sur l'esplanade du Grand Théâtre vous faites le tour du Sénégal. Je peux le confirmer parce que je suis tout le temps avec vous sur scène. J'ai fait plusieurs grands spectacles ces temps-ci avec vous. Vous tournez énormément. Et les Sénégalais vous choisissent, choisissent, choix ou choix ou cœur pour Wally tëggal Wali Wally Light naa Boubestolofi, bu ndaw rek bu nga carrière moo la ba du ni pousse ni ñoo def da nga liggéey quelqu'un qui a travaillé pour arriver au sommet des grands spectacles fi nga xam ne fa la star yu mag yëpp di jouer nga war fa dem jouer bu bés tolloo foofu tey ban état d'esprit la artiste bi di nekk waaw Boubacar loolu naa ci sawar tontu parce que bi nga laalee état d'esprit rek nga nga ma dimbali bés bu tolloo fii euh, la personne concernée je peux même dire les personnes concernées parce que man du man rek groupe yëpp la mais mun naa wax seen tour euh, doit être concentré hein? beaucoup de concentration et xol yi xol bi dafa war neex. ça se ressent sur li ngay li ngay hein? Le xol bi dafa neex ça se ressent sur li ngay joué. waaw xol bi dafa neex xol bi dafa war a féex. Hmm. xol yi dafa da ngay war di rek. Hmm. parce que fi nga jëm la. Hmm. non mais des fois l'artiste a un stress.

dinañ gis dafa ne ñaan waaw waaw nu mu demee nii. Hmm. xanaa mu xam dafa beral loxo waa Paris. dëgg la loolu laa mën a wax. Hmm. ay fees naa feesul man moom sama mindset dépassé na loolu. Hmm. comme mes débuts je le tout le temps dama naan tëgg deux personnes ñooy taxaw ci digg piste bi. ñaar yi maanaam ñoom yële ñaan ñi dañuy jàpp dañ ciy jàpp te yàlla tax rek su ma waay wayee ba pare ñu ñu avancé sama papa indi mbooloo mi ñu way ba tey yàlla dogal lii donc. fees naag man man vibe hmm. mais niveau de ni bo si nga on est à quelques jours du grand spectacle il y avait la famille qui était là est-ce que tu ressens aujourd'hui la famille autour de l'artiste pour enjamber les plots xamné ne dafa nek sa kanam waaw sérieusement parlant il y a la famille il y a le soutien de la famille hein. vraiment parce que ku ne xam ni bés yu yu

parce que mon conviction là amoon gëm-gëm bi pas-pas bi ak nango liggéey mais le reste suñu borom moko motali. parce que femme, ni ma Sénégalais yi adopté ni ma diaspora bi ni ma aduna bëggé. lolu, yalla rek ku mën def ci doom aadama sérieusement parlant Yalla mi def nak kuma ma gis kontaan moom rek mo xam li tax mm-hmm. je pense que ni ma koy dundee daal mooy euh, ni ma ko gisee mooy lu ma xalaatoon la lu ma gëmoon la mais ci kattanu suñu borom mottali na ko kon fierté laa ci am ak contentement vraiment am naa ci contentement bu baax a baax. c'était difficile c'était facile noonu pëp pëp pëp xam nga lépp <laughs> donc maa ngi koy sant yàlla mais li damooy delloo suñu boroom rek mhm. lépp ci moom la alors euh, mënuñoo tudd Wally Balago Seck waxtane wuñu ki nga xamanteni mom moom moo fi nekkoon nag muy euh, le feu Thione Seck ban héritage la bayel héritage bu riche dignité allah dignité mhm. personnalité mhm. savoir d'or ak gëm liggéey ak fonku fonk famille ñeme responsabilité ci ma jot mëna mën a lim Mm. parce que su lim du jeex. Hmm? John Seck m'a légué toute une vie. ça devait être difficile de suivre ay parents. fi mu nekkoon ni mu kawewee ak say début ni difficile ça devait être vraiment très très difficile. Oui parce que nga nekk fu nga avez ni disons que pour ne pas trop extrapoler que Rome nga ko sax nag. waaw waaw moom da koy wax day wax dañ wax ni j'ai fait 30 ans de carrière li ci wali am ya, aw ma li ci wali def defuma ko donc man damay japp ni li nga wax transition la continuité la yalla mo moko nangul mom waye mu ne ko d'accord da ngay fekke ba app bi yow da ngay pousse man ma agali mais lepp li nga li ma li nga ñaan ma ngi koy def ci sa doom wa mom lolou da ko defale bopam sax da ko doon wax publiquement donc alhamdoulillah On peut dire que euh, Wali, c'est John qui l'a créé. De toutes pièces. Comment Parce que euh, au début, nous avons dit devant Wali Nous avons nga way nga euh, après Wali ci apprendre lu bari pour a nous ma c'est un premier prix Papis était témoin c'est lui qui a fait. lal boobu boo juddoo dafa ne Papis bul sonn kii munul ay génn leen fay ñu dem Papis na ko ok d' accord mais nga dem def tour nga ñëwaat. yow damay way di joy boo xoolee morceau kii euh, waa mbayin waa mbayin waa sambeen y avait beaucoup d' parce que maa ngi way di joy donc daf ma tatan taataan daf ma doon taataan. mais bu ko def publiquement ci kanam nit ñi. def na ma ko publiquement si ses bërët. ma dugg si ñëpp yuuxu waa ma commencé waaye mu ñëw ne oh fi nga duggee baaxul demaat delluwaat place am. aujourd'hui soo ko daan laaj est-ce que Wally mën na daan ça va <laughs> ça va <laughs> dana wax ça va d'accord d'accord ouais donc c'est une personne qui disait jamais merci nag. waaw dina ko wax keneen. mais pas doomam mais il était très poli c'est pas pour yaru tu vois euh, dernier jour bi may wax merci je vous la ko et ce merci n'avait pas eu lieu à mon sens fait merci beaucoup. parce que le répétitif le monde chaque fois le monde doon chaque fois chaque fois chaque fois chaque fois. d'accord tu vois. dama ñëw ci hôpital bi di génn mon ne wali Wally Je ko waaw. mu ne ma jërëjëf merci. ndeysaan. ne ko papa lu xew lu loolu mu ne déedéet merci lenn rek nga ma deseel maa mu ne ma génne ma fii waaw bés boobu laa mujjee wax ak moom loolu laa mujjee wax ak moom donc il disait pas merci mais nag su daanaan def su bëggee wax kenn mu dem ci par exemple un Fallou wala un Papis damay lim nii rek quoi mm-hmm. wax ko ne ko kontaan naa kat vraiment defal na ma lii defal na ma lii defal na ma lii def mais en face de toi, ah, disais bah, pas. Euh, c'est comme ça, il y a le il y a quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Aujourd'hui, Taï, tu euh, nga un artiste qui qui ci dimension bi nga ou ci Afrique wala ci de ko ci 14 ans nga lu bari bari bari ont ni won mënulo dama nga travailler Sénégal ñu bari doon la gens, du ko ko bëgg nous bëri parce que nous nga am imposé wane sa bop wane ni que dama war nek way kat dama Nous a bokku ci affaire bi ay grand ay nit yu bañ euh, liggéey ko am vie pas ci sa carrière sax mais ci sa vie ba may la li nga am nga partout dans le monde aussi nit ñi ça me fait plaisir ça me fait trop plaisir contentement mais pas ku wér xam sa bopp <laughs> soo tëddee rek bu ñu defee dañ jay di nga ko xam parce que ku nekk li nga mën xam nga ko mais man su ma sanguwaan ba génn ba taxaw sama seetu damay xam ne man maay bi waaw yëg-yëg la mm-hmm. xam ni man maay star bi dama ko yàgg suma bopp parce que dama ko gis c'était palpable et visible mm-hmm. alors par A par B ci kattanu suñu borom il fallait mu demee parce que c'est moi la star. de côté le def ci sa bopp. waaw mais su ma damay sangu génn rek xol sama bopp xamni ni star motax yoy daw la découragé non non. <laughs> Merveilleusement bien répondu. Une juste petite et dernière question avant qu'il rejoigne justement nos téléspectateurs pour la musique. Euh, Wally, c'est temps-ci, vu que vous avez fait beaucoup de duos. Aujourd'hui, vous partagez avec beaucoup d'artistes. Vous avez partagé avec Miyagi, c'est un titre qui cartonne. Vous avez partagé avec Amadeus, vous avez partagé avec Sidi euh, Sidiki vous avez partagé avec euh, euh vous avez partagé aussi avec euh, Baimas. Mm. Vous partagez énormément. Est-ce que c'est sur la lignée de la préparation de ce grand spectacle où l'artiste aime tout simplement partager, encourager les autres, tirer les autres vers le haut. C'est vrai que j'adore partager. Je suis une personne qui aime partager. Mais comme je suis en train de suivre une carrière, et une carrière, ça, se détermine de pas à pas. Donc, euh, ligne le bi nga je carrière bi parce que c'était prévu mm. hein? donner la main à mes jeunes frères ñoom tamit ñu jox ma seen loxo ñu ànd lëkkaloo aussi la musique sénégalaise très haut loolu kese la euh, ma leen di gërëm à travers yow leen wax merci ah di ko dalee ci Diaw Diop ba ci Baye Mass mi ci gën ndaw. Mm-hmm. am na yeneen sax yi war a génn mais boo comme instant bi ñu ngi dem Adidas Arena euh, damay bàyyi ba suma ñibbisee rek incha allah ñu àggali ko waaw. Mm-hmm. mais mais rencontre yooyu noonu est-ce que da nga jàngale. Euh, parce qu'en fait, les artistes, vous êtes distants. L'un est de son côté avec son style, l'autre est de son côté avec son style. Les rencontres artistiques, je donne un exemple. John euh, euh, tel artiste non je la mais est-ce qu'à côté de ces jeunes ils apportent tu apportes est-ce qu'il y a des étincelles autour

xam naa daal suñu borom def na ma ni mu ko ni xool na ni ko neex daal mu def ma ma ma ma ma waaw donc mais mis à part loolu li tax nit ñi seen télé di ma seetaan moo yàlla def na lu ci man lu spécial li tax ma seetaan ñoo xam sama baat la ñoo xam sama jëmm ñoo xam euh, sant bi neex ñoo xam tur bi ñoo xam waxin bi tu vois ñoo xam doxin bi loolu la suñu borom mën na doomu aadama te doomu aadama mënul ko doomu adama suñu borom képp moo ko mënal doomu aadama donc ku yàlla may rek nga fukki nit ba juróom di topp ren ba déwén pour man am na lu suñu borom def ci yow léegi nag yaay xool nan nga koy exploiter est-ce que xam nga ko ou pas donc ñoom ñëpp ku ci nekk ci ñoom fréquenter ko jàngat la parce que ci dé tu vas découvrir une une toute nouvelle personne boo xamante ni xamoon jikko yi ci moom am ah, côté aspect humanité bi ñëw ngeen dem ba nekk ay xarit nekk ay frère ñu bëgg la xam nga loolu c'est très très important donc côté bi ñu win la yokkute la ci man mm. waaw des connaissances euh, il va tout simplement rejoindre ses amis euh, pour distiller encore de la musique et puis après nous reviendrons après deux titres nous reviendrons dans quelques instants avant Nidem Adidas Arena euh, tout à l'heure notre réalisateur la nous a promis quelques images 3D de Adidas Arena rendez-vous musical et on se retrouve dans quelques instants et puis il est venu avec des amis tous ses amis ñoo ngi di euh, message mais dal spectacle mais je n'ai absolument rien j'ai fait 4 euh, ou 5 jours de grands spectacles c'est pourquoi j'ai un tout petit peu la voix cassée mais on y est on va y aller et on va continuer Walisek à l'instant même sur ITV et c'est maintenant la deuxième partie deux titres et puis on va se retrouver dans quelques instants. à tout à l'heure. Euh, la famille. bi mooy natural love tiktok tappote leen live bi tappote leen môi xanh dài Mas nyai du môi sa bai Te banjai Jagai sa yai Kuma michi mango nyai Chone sa mi jai daba Thank you. dama oui dama jaay comme dama jaay waaw waaw su ma fàttalikoo dama jaay dem ci italien metti woon na neexoon na soxol bi daa yaatu Raymond Ndiaye 2009 ay daba Ndiaye woo daba eh soxol bi daa yaatu wuy wuy wuy leen soxna daba Ndiaye ma woo comme yaayu moomi dani daba njaay daba njaay daba njaay daba njaay njaay njaay njaay njaay daba kër Seydina Aliou Mohamed Seck ak Wally bi wow wow Lamine na doxaya depuis mes débuts ñu doon ànd ma dëkkoon këram ci Italie ku ne xam na ni këru Europe ni mu xatee waaye fexe na ba yaatal ma waaw man maay décider jëkkëram daanu décider man maay décider lu ñuy lekk ba bi ma bëggee ñibbisi Sénégal sama ñibbisi ci loxoom la jaar bu dul woon moom su duma bàyyi ma ñëw ndax tubaab bi dafa nangu suma passeport parce que bi may yëkkati fii di ma yóbbu Europe dama mën football lool bi ma demee ba sentir tuma affaire bi mu bëgg ñibbi Sénégal daba laa woo ne dama bëgg ñibbi si man daal mën naa football lool waaye yëgatuma ko saa bu ma tëddee dafa am lu may woo ne ma ñëwul saa bu ma tëddee dañ may jox micro ne ma dinaa wax sa papa moo wax sa papa sa papa bañ sam papa ne ko waale mii damay rek daf ma iñaane dama ne ko lu tax mu milliards yi di footballeur di am dafa melni ni loolu la ma wax di ñaane mu ne ko déedéet nijaay mu ne wax ak sama papa ne ko nijaay dimbale rek bàyyi ko mu ñew milliards yooyu ngay wax di ko gis nak wal di ko am ci way bi alors sur ce sama papa bayima ma je me rappelle très bien ma ngi ñibbi ci Sénégal le 26 décembre laa ñëw ben 26 décembre la ñëw Sénégal donc il fallait tay ma xamal wa Sénégal que nit la bu bëgg mbokk ko xamanteni man mako porter mako ma koy dénk ñëwal gi yëpp ne fi ak ma ñàkk feneen yàlla na la ñu yàlla sàmm alors ban morceau la ñuy dem Taxi lo ay ñu dem Taxi lo Thank you. mangas viviendo, chita si vilayaka.

Merci Wally Balagosek pour ces notes de musique distillée qui euh, traduit l'ambiance qu'il y aura le 7 prochain à Paris, à Adidas Arena, Porte la Chapelle à Paris, euh, qui se prépare euh, activement. Le ton justement Wally da nga am ay xarit yoo xam ni li nga njëkk a wax léegi nga ne soxna si moo la yoroon foofu Italie. Ah. sa papa dénkaane la. nga toog ñëpp tok nga wat ko nga am xarit bu ñuy wax Doro mu toll ci ay difficulté nga jug taxaw sol sa dal dem fekki ko gunge ko quel que soit très souvent les amis tu as toujours envie d'être à côté de tes amis damay gis ni yow nit yi bu ñu xësee ba nekk sa nit ci lu ñu mën a nekk yow da ngay jug dem fekki leen quel que soit difficulté yi nga xam ne moom la ñu nekkee même bu fekkee ni nit gëj nga koo gis gëj nga koo dégg da ngay jékki-jékki rek comme tey nii nga def nii delloo ko njukkal loolu ci fan nga jëlee loolu. waaw euh, euh, dañ laa bëgg te yàlla tax. Hmm. mooy ñi nga xamante ni généralement doo sax xam seen soxla buñ la gisul sax garaawul mais boo feebaree ñu feebar. Hmm. soo jooyee ñu jooy. soo kontaanee baax na bëgg nañ ñooñu. même su fekké sax léeg-léeg nga faté mais bu yalla dogalé déclic bi ñëw sa bop ci katanu suñu borom mu li la seen xel sa xel ñëw ci ñom automatiquement rek fonce delloo leen li ñu moom. Mm-hmm. parce que mo lay noppal. ku ci melni Doro nga lim ko légui légui muy suma xarit Matar ñaanal tan. Amin. yalla yalla fëgg bopam mu ñibisi ci nu mu gëna gawé man non lay and ak nit man du ma ak nit man buguma xam daraay lu bon ci kenn man mbax rek lay ànd ak nit lu ci melni Doro Gueye rek la xam ci mom mbax rek la ñu bugan bugan gay dani mbax rek la xam ci mom mbax la ñu man na laay ak nit. parce que amna ful la bo xamanteni amna fayda bo xamanteni duma fekke lu bon. duma fekke lu bon duma fekke lu ñaaw donc limay xam ci yow moy mbax mbax nga may wan ak respect bu mat seuk ki nga xamni nak nag rek nga xam ci mom ak lu ciow li bare bare bare bare bu faté mbax gog nga xam ci mom parce que mom ngeen andé and mbubb la rek jikko it mbubb la ku ci ne am nga sa mbubb bo xamanteni mi ngi sa bir woné woko solo ko Padros nag limu sol mi ah, li Vuitton bu ref bu cher bi te rafet nga gis seulement ba ci bir woné lako doko gis ànd noonu la demee maa ngi ko ñaanal jàmm Boubacar encore une fois di ko ñaanal tan amiin amiin Doro Gueye Bougane Gueye Dany noonu la ñu àndee maag moom ñeneen ak ñeneen noonu laay ànd ak samay samay samay samay samay nit dëgg la hmm. xam yow xamoon nga ni Bougane fan fan su Thione Seck dëgg la woon xamoon nga loolu non mosuma woon xam loolu mosuma xam loolu <laughs> non non non

yee. foo ma sa dem yóbbaale naa Bougane Gueye si loxo laa koy jàpp xool daal yi. <laughs> mais Boubacar Boubacar ñii yow Boubacar yow yow da nga gisoon gars yi ah ci ci ci ci mode. <laughs> wuy yaay xool daal <laughs> fu mu mës a dem yóbbaale naa Bougane. fan. mais lii boo ko lii boo ko ba gars yi zoom ko. mais lii xanaa ndar la woon. du ndar. lii fii la ci Ndakaaru waaye sama baba yàgg moo sañse waay ko simbi waay paacoor waay <laughs> mais mais Boubacar Boubacar yàgg nga branché ay fila nga solo ah mooy fila Bougane xamante nañu mais daal bi nu mu tudd Bougane bi ay trappeur la solo Bougane ay trappeur la maye ni trappeur xam nga trappeur xam nga loolu non non fekk foofu waaw ay trappeur ma yónnee la photo bi <laughs> non photo bi boy duma ko guenné dé ci ne bo guenné bu ga no photo bi du génn. <laughs> semence la ñuy direct. mais ga fan Thione Seck deug deug deug ño doon and ndaysan ndaysan dem kili gis nga yalla di def. Papis. Hmm? ki dama bëgg mu ci répertoire am ngeen dugalal ma ben morceau bo xamni ni xam nga Jeylo. deuxième partie ba loolu bu ngeen ci dellusee ah loolu bu ngeen ci dellusee day jaay mën a

dinaa ko déglu. a Seck dafay Sahel Kili boîte bi di dem ci boîte B. Mhm. bi dem ci boîte mhm. live pour promouvoir boîte de di Kili. Mhm. boobu mi ngi live au Kili. ci le Mercedes nek. ma Mercedes ah. ok ah? morceau nga xam ay classique la yo xam dafa lancer le live ça pour révolutionner le live de Thione Seck ah. benn morceau bu tudd Jëyloo en live ci live au Kili Papis foog nga jëlal ko joxal mako sama rakk ji mooy ah nga moy sa examen d'entrée dans dal ba paré mon wéru korité lan korité lañ ko teug ak lan dama korité biir Kili waaw ñu ko répété ci koor gi enregistré ko ci koor gi foofu la bis commencé bis bis bis bis morceau boobu waaw waaw boobu amatul dan dan dan ko demo bodan dan dan Yanayi na zo da bawa da da da da gincan ayiye. Again, again, again. Kom maar hier. Ik kan dat niet worden fysiek. Babis, jox ko sama rakk ji. Rawaan, rawaan. Grand, percussion bi génn rawaan taxaw fii ci VIP bi ñëppay bàyyi. Eh! <laughs> non não Boubacar. Thione Ballago Seck. macha allah. da di ndaanaan. macha allah macha allah. te daf ko doon liggéey. Hmm. liggéey bu metti liggéey ko ba cinq heures six heures du matin. mu julli soog a tëdd. dëgg la ah. dëgg la mu julli soog a tëdd quatorze

And grand match, ñuy ñu koy ñafé ñafe yoo fait. kenn des fois gaay dañ ko doon mbal ay mbal dañ koy mbal mbal bu metti mu sama rek gaay mbal nañ mais donc tay bo spectacle bu toll spectacle bo xamni da koy répéter répéter répéter répéter répéter répéter ba ñepp wa Ramadan ñepp ne son nañu ñi seen loxo yi fut ñuy c'était un grand monsieur et si tu as un grand rendez-vous comme ça je te dirais d'assurer ces répétitions là comme mom nu ko doon defee nga xam ne spectacle bi day lisse té mom spectacle bi dafa doon liis te mat sëkk moi je n'ai aucun doute sur Niti De dañuy bég dañuy kontaan ci yow mais toujours dama mon ne yaa ngi koy teg ci mais l'eau liggéey doyul. l'eau innové doyul. loo changé doyul. juste pour terminer j'ai connais que da nga am droit deux questions hein. <laughs> def naa Ben, mais dama extrapolé ah dama maa ngi parce qu'en fait je l'ai vécu moi dama dama dama dund ak coon ñuy dem fu def ay Monaco plage di def suñuy guichet fermé mhm. may dox di yoré ñaari saagu di dox ak mom di def ci bi ma sa fait <laughs> ah gaay di ma di ma mo boy gaay nañ la dé Monaco plage mhm. dama dootu fu tëggati gaay na ma nañ la mais demal tok demal il y a lepp dina généreux tu vois Juste dire, est-ce que dans ce spectacle-là du 7, on peut voir son ombre? Est-ce qu'il y a un appareil pour Djel Ben Mosso, ou le ko hommage wala lan nga qui ci moom. waaw euh, Papa Thione dina saf sàpp bu soobee la le 7 bi inchallah parce que choix la am à 100% cadeau te nak bés bi la c'est tout à fait normal dina ko am ba doyal Dama mës a wax wax bi mu de rêve quoi bi mu jouer pour voir là, il était tellement catégorique Olympia là. Olympia c'était 1800 places. places ñu dem ba Zénith ubbi Papa juf def Zénith mu taxaw ñu ngi joué penc mi Zénith bi ñu ngi ko siraan teg ko ci écran penc mi yi maa ngi ko fekk mi ngi taxaw tiim écran bi ñu di xool nii mais concentré wu quoi parce que nuyu naa ko nuyu ko nuyu ko nuyu ko dégguma मुफगलॉस bi ni mu tourné mu ne ko kañ nga joué fii ma bu déwénee maa fay dem ah beneen dem bu am man maa fay dem ñoo ànd dem si at boobu mu joué yéeg ci kaw scène bi ñu wàcc mu ne waa waxoon nga ma ko de léegi ma mm-hmm. ma ko bersi mu ne tegaa xool benen, ma ne ko yàlla baax na ci at je me rappelle très bien dama nekk États-Unis lii ma wax am na seede Bougane Gueye woo ma Bougane Gueye Dany woo ne ma je t'achète un billet nga dem Bercy Youssou Ndour ma ne ko waaw ci une condition ne non j'ai parlé avec Bouba xam nga doko doo ko doo ko waxal loolu ci télé laa nekk kan? parlé Bouba c'est calé eh, da ngay dem def Bercy comme invité sa papa bëgg na nga ñëw ma ne ko waaw amul problème léegi damay ànd ak waa Ramdan ne ma non da ngay dem pour playback ma ne ko ah du dem bu dee damay dem pour playback du ma mën a dem parce que foofu man maa demaat tëgg boobu prévoir nga pour dem fa. waaw mu ne ko boobu man maa fa demaat tëgg bi su dugaat pour jouer live mais pas pour playback at ba ci topp maa tëgg bersi da ko gëm. waaw mi ngi ko fekk ci kontra tolof mu ñëw ne ko signé naa contrat Bercy. mu ne ko waaw ko ne waaw dem nag waaye dinaa dem dinaa dem assuré ko ñëwaat.

am na benn xale bu jigéen bu tudd Aïda euh, Aïda Ndiaye Aïda Baara Ndiaye cofeel gi mu am ci yow day day day loolu ci pap ci sa pap la mm, ci sa pap la mm. mu ñëw directement cofeel googu ci yow du ma xool sax vendredi bu jot lii maa ko maa ko fekkee day def ay sarax pour yow euh, mu su ma dem ma sarax boo demee armée waaw da nga koy fekk mu toog wala mu jiwaat la ko yow day dem ci con sec pare ñibbi dama ne. ñoo bokk bàyyi Ayda Ndiaye mu Baara njaay kooku wóor na ma ne ñoo bokk bàyyi. waaw du ñuy gisee nag. bu ñu gisantee rek armée la ñu gisee te dama koy séen dafay sax làqatu. bala bu ñu dee ci spectacle bu mag du ma sax xool. bilaay du ma sax siggi xool ma waaw. maa ngi koy gërëm bu baax. macha allah pour wan la cofeel yi nit ñi bëgg sa baay. Mm. te cofeel googu la ñu la bëggee. boo ko raw dëgg la la. bëgg biñ la bëgg nak ñun loolu c'est c'est à part ah, quoi Fama allez-y waaw waaw dama ñu ñëw un peu sur les réseaux sociaux impact bi nga xamanteni mom la am ci sa musique bi actuellement naka nga ko gisee réseaux sociaux yi parce que tout à l'heure yaa ngi lancé benn live sur TikTok et que yenen ak yenen ak yenen yenen live yaa koy préparer sur Instagram YouTube etc. cetera le 7 incha rabbi rabi ban impact les réseaux sociaux yi am ci sa musique bi waaw am na ci impact bu am solo vraiment am na ci impact bu am solo dama gis ni euh, digital dafa dem ba dafa nangu na nangu na àdduna nangu na àdduna donc ay télé télé ambulant ngay gis ah ku ci nekk am nga sa télé bopp nga téye ko sa loxo donc euh, gis naa ni am na impact mais loolu nag euh, ndeysaan mooy ngand nag mooy ngand Youssou Ndour hmm. waaw mooy gëree

may ma ko waaw waaw mm-hmm. ne ma lii dama la koy jox mm-hmm. lii ma lay jox nii mm-hmm. na nga fexe ba na ko gëstu nu mu gën a gaawee ndax ci nga rawee say morom ëllëg kenn du doxal te amoo lii lu nekkoon ci ordinateur bi pour la première fois ma gis ordinateur kay man boobu non ordinateur bi la la may bu cher pour wax la man xaw ma dara maanaam maxu laa ñëw ne ko maxu ordinateur dañ ma ko may Matar Subatel ne teel Youssou mu ma ko may lii la ma jox ni koy defee installé ma ko xaw ma ci dara maanaam en fait wax la nii daf ma teel a daf ma teel a bret xam nga war gis nga baax rek am solo ak jubal ak gëm-gëm Tu vois Qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, il faut que le Sénégal nous def dara pour pour Youssou Ndour. non non non non non raw na un ci Papa Thione. Mm-hmm. yàlla bu mu leen raw ci Ismaïla Lo Omar Pern Youssou Ndour. Mm. Baba Mal. non bu dañuy xulee ba mu raw après nga topp ci waxtaan ba ji daw. Mm de son vivant de son vivant il faut que le jarul nga koy fréquenter juste soxla nga koy fréquenter. Mm-hmm. yëgal ko rek teg ko choc rek. yëgal ko rek teg ko choc rek par force da ngay fël. yëgal ko. pourquoi pas doo jiite initiative boobu. waaw mais xam nga aussi dafa am loo xamante ni dafa dem ci aspect boo xamante ni dafa laajte mu jóge ci cadre informel ñu formaliser ko dem ci formel. mais warna am sax tali bu ñu tuddee maa jigéen ah tuddee ko lu mak parce que nak wax deug yalla mérité nako dé de. Medina. mérité nako quoi mérité nako mérité nako vraiment ha ah, maa ngi koy ñaan autorité yi tu vois parce que ñun ñepp ñun ñepp kuy sénégalais il t'a fait rêver à travers sa voix ak gëm gëm ak pass passam Aliou sa kenn di sunu. tay nak nga bëgg tay lolu lolu bu doon am. nak nga bëggee ñu défé ko parce que yow personnellement. garaawul sek mi di wax. Wally man mako mëna wax ni kenn du Youssou hmm ndax man dama dund ak mom and mm-hmm. ak moom. Mm-hmm. fekkee ak moom. Mm-hmm. dem fu ne ak mom xëy na fii xamu mais bés bu nga wàccee aéroport nga and ak Youssou Ndour ngay xam Youssou Ndour drapeau ambulant la buy dox ci aduna bi Youssou Ndour drapeau ambulant la bo xamni ni Sénégal la ko moom. muy dox ci àdduna bi bu ngeen àndee États-Unis te dañoo ànd États-Unis bu ngeen àndee tournée te dañoo ànd tournée dañoo ànd tournée bu yàgg tournée album bu tudd Nothing in Vain coono du réer Olympia bi ngay wax du Olympia dafa rëy de mais dafa mythique dafa ñu ànd Olympia mu tëgg Olympia mu nekk salle boo xam ni

ne c'est la prochaine révolution te aujourd'hui, bu ma série séries. Je série ma vas-y à chaque fois dañuy buzz à chaque fois euh, est-ce que Ben buzz peut na négativement ou positivement sur sa carrière Wow, buzz chercher buzz Oh. waaw léegi ñoom ñoom ñoom buzz def waaw mu la expliqué ni xam nga bës moom boo ko déggee mooy euh, soit ki ñu koy defal da ciy ànd wala maanaam sax muy calomnie <laughs> bad buzz waaw waaw good buzz bad buzz waaw mais am na yuy impacté sérieusement parlant mm-hmm. waaw am na beneen beneen tournant si sa carrière pas sama carrière pas sama carrière

ki ko bind ki bind ko di ko baalu ak parce que dañ ko wax baat buñ ko war wax mu jéngu te bad buzz moo créé loolu mais graw <laughs> Wally dafa am lu bari loo liggéey ci musique ci sa jëmm day tuuti pour nu xayma ko euh, ku dul nangu day tuuti pour mu nangu loolu cest dire que xolam du may pour mu nangu ni Wally Seck am lu bari lu mu liggéey ci musique sénégalaise euh, ci say at bari nañu fi nek defuñu ko ci temps bi nga def ci musique bari nañu fi nek te defuñu ko euh, tay li nga cër bi nga jox Youssou bu ko raw mérito sénégalais yi jël ko jox la ko parce que yaa def ay efforts promouvoir la culture africaine pas mani Sénégal yangi y a ay image yangi def des bu jot ay djego yu ni que affaire bi nek kase dafa nek Afrique dafa nek Sénégal hum, tay ban taxaway nga bëgg ak ban ngay xaar ci les Sénégalais way aussi ci ñi nga gouvernement ou le euh, euh, secteur euh, culturel bi tay ban taxaway qui ñu côté pour jàppale pour gonger, ouais, aussi pour accompagner la culture euh, euh, sénégalaise et en Afrique euh, en général waaw taxawaay bi dafa dit que ci ñun Padros l'Afrique a besoin des leaders je ne parle pas du Sénégal je dis l'Afrique dañu soxla ay leaders alors leader pour nga pour un leader africain il faut que dëkkam ñu soutenir ko ci soutenir il faut que ci pàcc mon bloc bloc de fer il est temps que les jeunes sénégalais apprennent à décider il est temps largement temps que les jeunes sénégalais apprennent à décider surtout les jeunes dakarois C'est une pareille de école Bach di len fay lu cher ku ci am ki rek dem dem yi paré après orienté wu nga boo ñëwee Dakar def sa vacance bi non non non non il faut que ça s'arrête il faut qu'on apprenne à rester dans ce pays là. à transformer le pays. à décider à avoir nos mots nos propres mots décider même bu ñu nekkul devant même bu ñu feeñul. Nous décider dans l'ombre l'Afrique a besoin de leaders mais personnellement le Sénégal les jeunes doivent être déterminés à prendre des décisions très très importantes allez allez rebondir les jeunes yi nga xamante actuellement dafa bëgg ñu nekk ay leaders naka nga en parlant d'actualité naka nga gisee discours euh, président bi par rapport à tirailleurs ailleurs. nga ko j'attends que mu aboutir ma ci jël conclusion parce que dafa wax ñu dafa dañ ko wax moom tamit mu jox mu wax mu tontu léegi di nga di nga mën a xam su su décision amee ak fi mu jëm parce que paaka kenn du ko jiitu ci mbaram. d'accord mais li li li nga question bi ngay posé nii munul sotti mënul dem tant que ñun jàppalewuñu ñun taxawuñu ñun pareeguñu. Mm-hmm. nañu não nañ toog fii ci réew mi pare di décider li may wax ni dama koy wax euh, nañu un un un un grand frère hmm? dama koy gis ci télé bi Badara Gajaga hmm? hmm? c'est bien gis na mi ngi mi ngi fexe. Du du tek pas ci aussi oh luma dal fan yi rek avis. na fi ci permis boy bi Ahmed Ahmed Ahmed les jeunes sénégalais doivent avoir leurs opinions dañu soxla tay un 18h Boubacar woté allo on se voit dimanche 16h teeru bi wala Radisson wala King fat ñu ñëw tok gaare auto yi fay téléphone yi waxtaan décidé xol li ci gëna baax ñu génne ko jébbal ko réew mi. Padros yow bo nekké ministre man suma ma ministre am na yoo ni mën na ko gis ma ñëw wax la ko nga jox ko réew mi mais ku nekk bo toogee sa coin rek du sorti man bañuma ku ku ne d'accordul wa ah, d'accord d'accord na d'accordo mais indil li tax nga ne d'accordo après ci ci ñi nga d'accordul nga ñu ne leen d'accorduma dama gas japp ni kat li mo gëna bax li nañ ko jël ñi dañuy def ko mais le bloc n'y est pas bloc bi moo absent bloc bi sénégalais wara def moo absent mhm. vraiment mhm. man loolu laa gis d'accord mais tu musique <clears throat> pour pour nous revenir c'est vrai que c'est important ci point d'actualité yooyu waaw ah, c'est vrai mhm. euh, c'est important nous ñu laal point d'actualité mais yow <clears throat> tey dafa am benn jéego boo nekk di def et que bu ñu toggee di la seetaan kase même ci même point bi nga doon waxee léegi la pour nit ñi jóg euh, def ay effort pour Sénégal Il ngi def un effort euh, euh, lan le ci yow pour pousser le wala pour jàppale la gouvernement du Sénégal parce que Boubacar <coughs> dafa dafa dafa jot pour Sénégal ñu nangulante hmm. waaw wax ko léegi ci say âge wala ci sa jëm nit mën na la xeeb waaye warul la ndax et que da koo jëf ni mu nangulee Youssou Ndour non le Youssou Ndour wala nangulee Wali non le xale bu ndaw war a nangulee Wally noonu la ñëpp war a nangulee Wally noonu la Bassirou Diomaye Faye war a nangulee parce que il est influent Wali il est influent te mën naa ni pour ñu jaay ben produit Sénégal tubaab yi bu ñu ko tegee ci loxom boole kok ñi ko war accompagner boole kok liñ ko war accompagner tay mu jaay produit boobu à l'extérieur donc tay yow euh, waxuma la nga demandé mais amna loy xaar ci gouvernement mais amna loy xaar aussi ci ay autorités fi ci Sénégal wala Afrique ñu jàppale la pour ce ce ce ce, sa musique waaw ku ci nekk euh xam nga Dompat sax ci sot la bok du mëna ne mu dimbal soxla mu jàppale lool kenn du ko wax ndax som Dompat sax bloc mom balaa nga koy def da ngeen def da ngeen di bolo hein ah, ku mais c'est-à-dire que dama nekk nit bu catégorique dama nekk nit bo xamanteni dama bëgg soo ma nee waale ñuul nga ma ne la kukk moo tax je demande pas service tout le temps li jëm ci réew mi je préfère rendre service waaw au Sénégalais parce que non non non non nit ñi not yet du ci président bi du ci ñi la fi jiitu du liñ ma man man maa bëgg luñ ma bëgg defal nañu boole artistes yëpp. ñu def ñu defal leen ko propulser leen ñu gën a yëg. d'accord xam na ni xaaluma un franc. ok Padros tegu ma ne la. yi Sall liñ ma teg ci impôt mosuñu ma ko teg ci àdduna. dégguma li wax. jamono yi Macky Sall. waaw li ma fay ci impôt je défie quiconque nag dama artiste boo mën a doon ak koo mën a doon nag bu ñu génnee këyit li ma fay ci impôt fay googu. comme fi mu toll nii RAS. en terme fay ah, ma fay ci impôt fay googu man teg nañu ba teg ma sama impôt papa. billahi wallahi wal ci télé laa nekk. ñi fa nekkoon ñu ngi mhm. bi mhm. am na ti boo xamante ne sama jabar laa yónni. pour que ñu décaler ko paiement pour mu mën ko fay am des 6 millions quelque 12 millions et quelque xaaral papier ñu la ko duñ devons dama koy fay comme dagg nañ ko nous may fay dama koy fay ba mu 2 millions de jox ma. fait ci non ci def. Cheikh fay d'accord naa man maa ngi fay maa ngi jéem maa ngi reyante mais sama ëmb papa noonu ma koy tege ñu ne parce que moom paa bi retraité na nag yaa fi nekk. dañ la fayloo impôt ba fayloo la impôt Thione barki Cheikhul Khadim ci télévision laa nekk. Mm-hmm. ci télévision laa nekk. musuma onku. musuma onku parce que dama xam fi ma jëm. je veux être un leader africain alors mindset bi dafa war a jiitu ci man parce que fay impôt ci jaamu yalla la bokk. aussi liggéeyal sa réew la bokk. Mhm. c'est-à-dire même bu amul ben poste. Mhm. yow bo fay impôt contribuer nga ci rew mi. Mhm. ci développement Sénégal est-ce que tu nga. suivre. donc quand j'ai mon mot à dire je pense que je suis libre de le dire comme je veux. Ah, man li ma ñaan rek moo ñu def bloc.

parce que dama am ay gan yo xamni dañ la jox ay yobante te yobante yi foog ma jox la ko legui legui incha wa ànd nak dara wa xam nga la gëj gis. dara da nga gëj gis dara. wa rew me sec. yi war wo rew me sec rew dafa xawa sec ni rek mais dina dina deseke. wali rew me sec dina ñëw. xam nga laa nam. waaw yow. dafa tuxu wala yon mu dafa tuxu wala dafa yon tuxu wala. yoo ngi ci réew mi million. sérieusement mu ngi ci réew mi. million. man non yoo yoo moom dafa toxu moom. non. <laughs> yoo ñun ba mu disparaître en ah, Padros yaa gën a. <laughs> yow yow waxal yow ah. ko gis. yoo yoo bu dee dëgg rek. Ah, xaw ma ban koñ la nekk pourtant pourtant yoo ngi ci réew mi de. léegi fan la yow. dañuy nekk di lijjanti rek. mais réew mi xam nañ ne sec na. d'accord mais dina décanté. loolu kañ la. non dina décanté. non Waly réew mi dafa sec mais dina décanté. man de géej maa ko gis ah, dina décanté. ñun jaaykat yi de jaay mais yow yow mënut a daal ba yooyu na ci bokk. non yow jeex na amul benn problème. man j'aime bien yow. yow ah. waaw mais kooku bu ngeen waxtaanee da ngeen di jubóo. ah kooku bu ngeen waxtaanee da di jubóo. kon kon baal kon ma dama def dernier morceau ñu tàggatoo. wala jeex na dernier morceau kon kay xaaral ma jox la ko moom daa ànd ak yow mais xam nga nga lii. machine à café la. déedéet mais mais Boubacar. Eh, moom déedéet. machine à ataaya. ataaya nga ni ma. waaw nee nañ da ngay dem machine à ataaya la ñoom nee nañ wax nañu ak yow te dañ la seet si machine à ataaya li ataaya lay génnee du génne caay. caay gi caay la du caay lay génne. waaye yow lii de kon moom xëy na. T-Ways. tarkal la léegi Papis. yow booy tukki. waaw booy tukki. waaw. nee na ma ta. waaw sa fo. waaw waaw waaw. waaw. war naan lu tàng. waaw T-Ways nee nañu ñi ngi ñëw ci yow.

noonu ngay yaay seet bi la ñu naan ataaya <laughs> <laughs> mais jot nga wax ak ñoom ti ways mm. waaw dañ ñëw nag waaw ah jot nga wax ak ñoom xam naa njaga sûrement waaw waaw mais non non Ibrahima wax naa ak yow téléphone ba pare boo ñuy wax téléphone dañoo bare ah, wax naa yow téléphone ba pare mais tëgg mër ñoo <laughs> yow boo ko kontaan naa waaye jërëtul way way nag. yow ah jërëtul way de kontaan naa de. déedéet déedéet da ngay tëj waaw jërëtul tàggoo rek euh, mhm. mooy programme am. mu def dernier morceau ba pare. non mais de décembre. ñëw ñu gisee ak ak ak ak. parce que décembre am na looy prévoir avant 2025 non on a des projets ensemble. incha allah incha allah dinañ ñëw toogaat fii. ah su ma jógee ñu ngi ñëwaat

am ne pas questions, ci question yi ci par exemple plus souvent à la radio c'est di promouvoir nit il faut que les gens di nangul nit li mu doon man poser question pour pour pour ni mais à travers les sénégalais yi déglu ko dégg pour xam Wadi, en fait pour la personne dama déglu man musique man musique euh, musicalement dafa kawe mais lyrics bi daf ma mélodie de am daf ma dépassé. musique mën nga am texte riche mais am ay mélodie donc ko trouver do xam fan ngay ay mais musicalement day way da ngay content da sentir la ay paroles ko euh, plus de 10 textes Euh, mille boog cent album def ko ci benn way je sais pas ba xam seetlu nga di ko def thème yi da nga way pour société bi da nga way pour wax ak gouvernement yi ni ñuy yoree réew xamal leen bu ñu leen dénkee alalu askan wi naka lañ ko war a yore da nga war pour les agresseurs yi nga xamee ñoom ñoo amul liggéey nekk ci mbedd bi di def naka su dul noonu da way pour ñi nekk ci réseaux sociaux yi seen taxawaay tey il a chanté pour beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de choses et que Lolo gis nañu ci temps ci temps yu mujj ci côté bobu daf ci daf ci daf ci daf ci nek niveau waaw. mindset bi rek. waaw waaw mindset bi les esprits doivent changer. ci côté positif Ni positif lépp lu négatif Non. lu bon jëru waxtane. lu bon ak lu jëru

toogal rek yow toogal rek yow toogal rek boo ko man sama yi bi met daal yow toogal rek saa man daal li ñu def démb la ah li ñu def démb la un poche amul dara quoi wu ne Ndiaga chèque dix millions ah gaa leen ci man ah dix millions bi liquide la de bu mu doon chèque Ndiaga liquide la waa cëm Ndiaga nee na liquide la mooy temps C'est pour ça que j'ai de d'aller à la prison. C'est ça? Je vais aller à la prison. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller à la Mais c'est mon grand frère. Oui, je le connais. Pape Doudou, c'est mon grand frère. <laughs> Wali Padoudou, c'est mon ah. grand frère. 1, 2, 1, 2, 3, 4

nekk ni nga mën télé bi dafa mën Did it be I'm Jehovah, Jehovah, Jehovah, control. sama ndeyjoor xam nga ni damay Pour la route de Adidas Arena Paris, nous avions comme invité de marque ce soir Wali Balagosek qui nous fait et le plaisir de venir partager avec nous cette belle soirée. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous demain, Inch'Allah, toujours sur ETV pour d'autres artistes et d'autres grands spectacles. Merci à Famatoun. Merci beaucoup, Padros. Alors, dire remercier Boubar Maktoum, Mimel tous les jours, numéro de téléphone 77 912 65 65. Dire remercier ma sister d'amour, Amina Borom euh, Beauty, Family, euh, Minga Khamante de Munginek, Fof, tu parcelles 1 T15 kepp kuy kullu ndaanaan moom moo lay maquiller ba pare defaral la sa bopp noo ma gisee. tu es toute belle. Amina moo fi jaar Beauty Family. merci beaucoup toujours toute belle Padros. merci euh, merci à <laughs> toutes les téléspectateurs donc ñu ngi remercier. Elage Teranga voilà mon ami Elage Teranga Lunch depuis Foflet Almadi donc mon moo habillé, numéro téléphone am Amdi 77 107 69 73 Goro Wali merci beaucoup à Christine merci à Aïda Aïda Ndiaye merci à ki nga Momo di. Mam Koumba donc c'est un message merci beaucoup Goro Wali numéro Beauty Family Hair bi nek parcelle unité 15 78 388 76 30 ñolay faire le sa pour maquiller le lu rafet photo le filmer lu am jom. merci beaucoup Amina. Salut à toutes et à tous, bonne fin de soirée, portez-vous bien, que Dieu nous accompagne et que Dieu accompagne Waliba Lagosek, à Adidas Arena avec plein de succès. Ciao, à très vite.